ها ولد ياتي ها ولد ياتي asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokki téléspectateur ak internautes yi Waladounyati TV samedi 14 mai 2022 di bés boo xam ni Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh dafa war a amal déplacement Saint-Louis ñu fas yéene ñëw fii ci Tivaouane Peulh pour amal fi benn conférence sous le thème de la mission universelle à l'épreuve de la fin des temps. seen chaîne wala Duniyaati nar si ànd ak yéen ci reportage bu am solo ngir ngeen mën a dundaat événement boobu noonu li ko dalee ci tertu Seydi Mouhamed El Cheikh Wazifa conférence waaye tamit ñu bëgg leen a dëgtal benn surprise muy interview Imam Al Mahdi Al Muntazar xam naa rek incha allahu dama leen di ñaan rek ngeen topp ñu su ko defee ñu ànd ak yéen ci événement leer bi di événement bu am solo ci programme mu euh, Hadara Seydi Mouhamed El Cheikh salaamaaleykum. La l'essence de la fin proche des temps. La chaîne qui diffuse les connaissances du bien guidé Al-Mahdi. La chaîne des grands mu mel ni rek yéen ki nga xam ni yéen représenté fii eh, ci Tivaouane Peulh Seydi Mouhamed El Cheikh te itam yéen ay eh, diriger eh, taalibeem yi fi nekk yan ñoo lan moo nekk seeni activité fii ci Tivaouane Peulh depuis que mu jox leen xijaaza bi. fii ci Tivaouane Peulh ñun suñu activité leen kese la mooy li ñu sang bi digal. jaamu yàlla lal mbalaan suba ak ngoon xadara juma fexe ba tiisee suñu diggante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam relation bi gën a ratax fexe ba suñu diggante ak Cheikh Tidiane relation bi gën a gën a ratax suñu diggante yàlla relation bi gën a gën a ratax ñu ñu ngi tudd uh, Amadou Oumar Diarra état civil ñu wooyee Seydi jara président daayiratu Iman Tivaouane Peulh sang bi waxoon ne dina ñëw Tivaouane Peulh mu waxoon ko moo tax mu mu dëggal waxam te moom lu mu wax da koy def muy kóllëre jàng naa ci loolu. siècle bu nekk yàlla dina indi jàmm yàlla bi nga xam ne mooy dressé waat nit ñi mooy xam xamloo waat nit ñi génne leen si lëndëm képp koo xam ne yaa ngi am chance di ko gis nii di ko jox loxo jamono moo ngi ñëw boo xam ne pour nga gis ko wala nga gis pëndam sax problème la parce que moom mooy gouverner àdduna bi. bu fekkee côtoyoo ko ad euh, enseignement à distance ngay mun a ngay mun a ko déglu mu yóbbu la fu mu lay yóbbu parce que ay waxam waxu lumière la ay xam yi muy dégager c'est de facture. du ay xam-xam bi nga xam ne da ngay yéemu ne li ngay wax ne lii nii fan la ko yàlla dencoon si jëmmam bi. sang bi 48 heures laa tëju di ko suivre di ko suivre di ko suivre vidéo yu jot a jàll ci YouTube yëpp dañ koo suivre ba pare ñu ne directement ndar lañ jëm. kooku di defar nag bu yàlla waxee daw leen jëm si man kooku nag mooy nekk kok kokk ak jamono moom la bàyyi di wax ne kokk ak sa kokk ak jamono boo ko gisee. boobu daw xël nga war a def dem si moom ndax boo ko deful rek si jàmm yàlla amatul benn jëriñ ndax moom ñun nit ñee ko war a fekk warul waaye warul fekki kenn nit ñi ñoo war a daw ci moom ñoo war a daw dem fekki ko parce que li mu yore li mu yore la. moo tax sang bi bu mu feeñee ñu déglu ko xool dañoo xam ne moom la booba sang bi defagul déclaration ne gars yi defaguñ déclaration ne moom mooy yaa imaamal mahdi ci njàngale yuñ ko déggoon bien avant. la ñu xam ne moom la. te lu yenent bi waxoon la ne boo ko xamee imaam al mahdi al muntazar boo ko xamee am ah, euh, fu foofu mu mën a foofu foo mën a tollu bu dee ba Chine nga toll bu dee da ngay ramsi ay glace sax ñëw seeti ko da war a ñëw pour euh, yees lu si moom barke lu si moom. moom daal ñoo ngi koy xaar. waaw kon nag du sedd mais dañ koy def ci discipline nag ci yar dañ koy def ci teggin ndax moom li mu jàngale mooy lépp lu mën a xew rek na nga yaru saabu nu gisee sayidi muhammad el cheikh sunu xol yi dal sunuy ruux yi leer jërëjëf xutbul aqtaabul kabiir sa gi am jeexital si ñun saabu nu gisee sayidi muhammad el kabiir sa leer gi am na jeexital ci ñun saa bu gisee sayidi Muhammad el Cheikh sunu xol yi dal sunuy ruux yi leer jërëjëf xutbul aqtaabul kabir sa leer gi am na jeexital ci ñun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

ñun bu ñu xoolee fa ñu nekkoon ay temps su ma juumee côté 2014 damaa nekk si oto di làng boobu maa daw di nga ne waalo mais damay toog toujours toog naa lu mat 4 yoo xamante nii su ma jullee sax mën naa ne dama fakkatal sama jibi suuf. loolu moom bi ñu xamee sang bu tedd bi waxuma la bàyyi waaye ñemeetuñu sax fréquenté xanaa ñi koy def. mais dama dem côté ay 2018 yooyu ma toog diglu benn kastam un jour ma commencé ma am nag lu may sentir. du ko yëg ma xam ne kàddu gi may dégg nii nekkul lu ordinaire lu extraordinaire. man maa daakoon saaga sama njaboot léegi du ma saaga <laughs> kan moo ko dindi si man moom moo ko dindi. te Seydi Mouhamed El Cheikh li mu incarné li mu def ci ñun moo tax xam-xam lañ ko topp waaw leer lañ ko topp surtout Cheikhu Tidiane lañ ko topp waaye yonent bi lañ ko toppee waaye borom bi muy jàngale ci xàqul yaqin moom lañ ko toppee. te ku jàkkaaroog moom mu sol si yow leer goo xam ne si foo tourné gars yi xam ko si yow. lépp li ko waral mooy Mawlaay si Ahmed Tidiane la nga xam ne moo ko yónnee te na ko wane na ko moo tax fu mu ñu daan ko wuyu. nit ki da am fi ngay toll da xam ni yow mii defaru nga am na lu ay ñaaw teef yu jóge si yow si ay jikko mu def ko transformé def ko ay ngëneel. Seydou Mouhamed El Cheikh dafa nekk nit koo xam ni dafa yaarame dafa te dafa leer te encore daa baax dafa yiw daal. si noonu nag ñu choisir sang bi. ñu tànn sang bi tamit biñ ko tànnee ñun tamit ñu gis ay preuve ay preuve yi nga xamante ni nii nekkul ay làmbaatu yii nii. bu ñu biddantee sax dañuy rus dañuy rus yàlla xam na ko bu ñu doon waxtu julli juróomi duñ ko taar. wasifa yi noonu xaddatu jumaa yeeg yëpp noonu ba pare respecté magu tarixa bi koo gis jox ko cër ja koo jàpp sa bopp. dama doon tëdd ba huit heures ma jóg pour man huit teel naa yeew léegi maa ngi jóg avant ñuy salaatu. ma ma ma ma ma ma euh, kii jàpp laazim. ñu xëy gis sunuy mag nekk ci xàddara sang bi bu ñu xëyee fajar quatre heures du matin ñu jóg toog di wasifa di laazim. xamuñu woon Cheikh ñun ay waxu tarixa yi sax daaw ma ko wax yàlla xam na ko man jëwëru su kaama si ma laan wasifa laa ko mën te jàng naa ko ba taay mënu ma ko mokkal waaye moo tax kenn Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh. li mu def si man mënu ma ko wax. daf ma defar ba nga xam léegi dama ànd ak xel mu dal sama xel moo dal. tëdd nañu sang bu tedd bi ñëw wan ñi tampon bi nga xamante ni nii moom la ñuy tuddee tampon imaamul mahdi. Seydi Mouhamed El Cheikh ku dem nit bu demee boo toog di yëg ni carrément toogeeg naag toogeeg naag yoyante bi kon loolu loolu loolu ndaw yàlla xam na ko. ma ni tamit ñi yoon bi ñu jël bis bu ñu demee ba génn ci àdduna.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 nekk ñetti xale yoo xam ne ay seex lañ ñaan ñi seex lañ kenn ki mooy seen mag. waaw man nag yàlla dafa def ma dëkkoon ak alxalifa alburi ma am ay seex yu góor ñu am boo si yooyu jamono juróom benn at rek jàpp juróom-ñaar xale yi taq si alxalifa alburi dañoo xëy tontu alxalifa di wasifa sama ma yaay fii la moo fi xew mu ne wasifa ma ne ko waa suba dinaa dem wasifa mu ne waa baax na. dégg ñuy wasifa foofu après timis sama naw bi mel ni dafa am lu si génn contentement bi ma am bis boobu ma man maa ngi soog am ay dëkkandoo. Euh, ñu doon ma wéttali ci mbalaan bi kon ci loolu lañ nekkoon ci activité xale yooyu di ma wéttali ci mbalaan bi. bu wasifa jotee xale yi jël basang daw dem wasifa si moom. man mën naa ni sama seex yi ak seen rakk bi ñoom ñoo ma yóbbu man nag 2021 laa jël wird ci alxalifa alburi chaque jour ñoom ñoo may indil basan xale yi ku ndaw kii day tari day day kii jëwratul kamaal ma ñoom ñoo ma ko njëkk a mën ndax man bi ma jëlee wird laa ko mën mais ñoom ñoom ñoo ma njëkk a mën kii ñu bëgg sang bi lool bëgg ko seen biir xol bëgg bu dëggu tonton kañ lañuy ndax tey wasifa am na su ko defee rek nga gis ma ne leen waaw rek ñu dem jël seen kër mbalaan basan ñëw indil ma malal ñu wër ko mën ak ñoom ñu nekk ci boobu sang bi ci la ma jox ndigal pour ma lal mbalaan dañoo kii bëgg nga xam wasifa ba pare xam Cheikh Tidiane ak ñu ñu wasifa ba si yàgg ñu dégg ñuy wax sang bi léegi ma la ma laaj sama yaay nag kam mooy sang bi mun nañu Mohamed El Cheikh après si la taalee téléphone mu dugg YouTube mu wàññi ko ci ay waxtaanam rek laa defaroo man ndax yar ak teggin diine lislaam bi muy jiital def ci ko si ñun def si ñun leer def ci ñun yar def si ñun teggin def si ñun personnalité dignité defar na ma defar na sama njaboot waaw defar na ma defar na sama njaboot damay ñaan yàlla na sax dàq صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والختم لما سبق ناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى علي حق قدره والمقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والختم لما سبق ناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى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 الرحمن فلا bismillahi irrahmani irrahim asalaamualeykum su ko defee thème bi ngeen indi tey dafay thème boo xam ni facettes yu bari ñu ngi ci la mission universelle face à l'épreuve de la fin des temps buñ ne missionnaire rek dafa am fu baat di dem bu dee yonent yonent jeex na ci Seyyidina Muhammad kon ban missionnaire waaye fi ñuy ñëw mooy bu fekkente ni yàlla wax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni moom mooy le dernier des prophètes léegi kon ñii ñëwaat wax ni ñoom missionnaire lañ kon ñoom euh, lan mooy seen statut ñu ni bu ñu jëlee missionnaire bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxañ te muy imaam al mahdi xam nga ñu bari dañu defe ni imaam al mahdi rek mooy missionnaire ginnaaw yonent bi déedéet am na yeneen missionnaire yu amoon ñu leen di tuddee ay wali yu mursal imaam al mahdi ci ñoom la bokk waaye boo gisee yonent bi joxañ ko moom mooy fi ñu soxla ñu jubbanti àdduna moom foofu la mission am tàmbalee. yonent dafa am lu ñu koy ëmbee yonent nubuwa lañ koy ëmbee le tubaab di tuddee la prophétie te wax ngeen ni am na ñeneen ñu ñoo tuddee waliyu mursal kon ñoom ci ban ci ban cadre la ñuy delloo seen révélation ñu ni ña ngi koy delloo ci wax tëj nañu nubuwa mais ñu wax yu te waliyu mursal yi ci wax yu la ñuy dunde mooy la ñoo tuddee wala yi am nga Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani Chérif dafa ni missionnaire ñett rek lañ koy dénk mu ni ma missionnaire daal bu dëgg ñett rek a ànd ak moom ñi ko gëm mission ba yàlla terale leen aljana ñawee di mission ba diggaaleeg yàlla ëllëg ñi nga xam ni sacrifié nañu seen lépp doon compagnon yàlla gërëm leen fii gërëm leen fa ma ni gis nga bu nit bu lay bu yàlla dogalee da ngay muñ gis nga mission bi bi yonent bi di wax ni di nga gouverner yi boobu